ministre bi nga xamante ne moo amee urbanisme actuellement ak euh, hygiène publique et cetera qui a montré une envie une volonté vraiment de contribuer qu'on loue qu'on respecte et qu'on apprécie <coughs> par contre <coughs> moi personnellement et le moi nañ ma ko baal euh, pour ne pas être prétentieux là où j'ai un petit souci mën naa juum nag parce que analyse moom léeg-léeg nga am position te fekk du lool là où j'ai un souci mooy ces jeunes là on les a presque phagocytés à néant pour prendre l'opération, en faire un clean day et dire qui veut entendre le président Macky Sall initie. Après, il faut bien copier quelque part. Il, il faut, faut copier quelque part, que sauf, que, moi, dans l'optique de créer des Sénégalais importants, valorisés, reconnus et admis, damay souhaiter, par exemple, ce jeune-là qui avait ce challenge là tey jii bu nguur gi di def dara lu jëm ci loolu. Mm-hmm. mu impliqué ko moom ak ay moromam. Ah, ça les valorise ça leur donne de l'importance ça les crédibilise ça motive d'autres qui voudront peut-être prendre d'autres initiatives. bien et ça transmet le sens du patriotisme. foofu a gis leadership bu fort. et non pas prendre l'idée de quelqu'un l'exploiter en grande pompe comme disent oui l'État lance après quoi même si set setal amoon na 89 90. au temps de euh, Abdoulaye Makhtar Diop sunu papa boobu ñu ngi kan nuyu bu baax jamono bi muy nekk ministre de la jeunesse et des sports c'est lui qui avait lancé ce projet là au temps de Diouf donc tey y a le mérite de de de de de copier bien mais dans la continuité mais il aurait été mieux le mérite de reconnaître ces jeunes là et surtout de faire de sorte qu'on a qu'on dépasse cette étape là mënuñu en oui parce que maa ngi fàttaliku dañu doon jàngal set setal ci école yi école primaire yi ak yooyu donc ça doit être maintenant un réflexe naturel mm-hmm. que ce soit du gouvernement ou de la société léegi qui qui est responsable à un moment donné Dakar dañu jékki-jékki ñu ne Dakar dafa saleté mais diggante 2012 2014 il y avait un maire qui s'appelait Khalifa Ababacar Sall effectivement que nous savons qu'il a été depuis 2009 de 2014 2014 boobu nga xamante ni ñu ngi doon dem ci ay élections 2014 élections yooyu ñu doon dem moom mu gañe ko mais gañe booboo indi problème yëpp après parce que à la limite bu ñu fàttali ko suñu papa mbay Ndiaye bi mu doon wax Khalifa bu bëggee maire bi dafay ñëw APR loolu jur tout ce qu'on a malheureusement dans les projets du du maire Khalifa Ababacar Sall Dakar allait être super méga terra propre. Mm-hmm. Il avait tout initié il y avait les pavages qui étaient prévus pavage yi dañ ko commencé woon muy dem benn niveau bu àggoon tey xëy na duñ fi toog naan Dakar salte na mm-hmm. mais comme dañuy politique politicienne on a bloqué tous ces projets là et en les bloquant qu'est-ce qu'on a fait on a créé les conditions d'une haute saleté à Dakar. man je crois que pavage sàcc sàcc nañ ko ba mu jeex moo li ngay wax. parce qu'on a tout arrêté c'est-à-dire que parce que Biggi bu ko defee Seydi maxtar bu defee affaire bi moom la ñuy tàccu et pourtant l'intelligence c'était quoi mu def ko te bu pare man la koy présenter man maay taxaw ne mbooloo mi gis ngeen de ñëpp daan di foofu la ñu am problème donc tey loolu jural ñu lii ñuy def ni tey cleaning day bi lan lay jëriñ cleaning day boo xamante ni yow da ngay teggi léegi mu salte léegi ce qu'il faut plutôt c'est mettre les conditions idoines pour que waa UCG ak ñeneen ñi nekk ci mbalit mi mbalit mi léeg ñu politiser ko mu indi grève indi blocage et cetera parce que diw bokk ñu camp tous ces trucs la ñu war a jël teg nale nguur boo ko yoree da ngay dem si lu sérieux lu crédible lu honnête et non pas Euh, camaraderie quoi. mën naa intervenir tuuti rek euh, pour euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy ramasser mbalit mi nga wàccoo ak ñoom parce que ku ci mel ni madaani si doo toog benn jour boo xam ne ci Facebook du dugg am lu mu publier wala lu mu paas mm, donc pour man balaa ngeen di wax sa clinique de ñi nga xam ne ñoom ñoo war a jël di toon ni nga ngeen mettre leen dans de très très bonnes xam nga ak ak yelef yi nga xam ne ñoom la ñuy laaj ci ngeen mm-hmm. jox leen ko bu ko defee nag boo waxee clinique de nit ñu mun cee mën a topp weesu. elle a buur daal na génn ci yuur yi. ah mbedd mi mbeddum buur la. loolu par exemple ci yuur yi. mais mbeddum buur sax dafay set. ana buur bi. ana buur bi bi nga def sa bopp buur ba tax ne sa mbedd nag da koy setal. on sort ça de nekk ni euh, mbedd bi ñun ñëpp ñoo ko bokk donc. boo yëkkatee mouchoir nanaa yëkkati pot ki yëkkati mbuus donc que tout le monde fasse de pareil. effectivement mais nañu nañuy bàyyi euh, nañu moytu tuuti euh, c'est vrai que Yacine wax na ko sànq nit ñi ils sont responsables d'accord mais nit ñi ils sont en premier victime même kii kii jël lekk sànni victime mu système bi la ak société bi nga xamante ni formaté wu ko comme il il devait yaru yaruñu ko on l'a pas éduqué mm-hmm. joxuñu ko éducation bu baax buy tax mu am comportement boobu am na ñoo xam ne xalaatuñu lekk ñun Sénégal ngay gis Sénégal ngay gis mais je vois même des enfants pour mm-hmm. pour te réconforter euh, des mes petits neveux de cinq six ans qui font de leur sac à dos quand mmh. ils partent en sortie poubelle bu ñu ñibbee ils remettent dañ koy kooku dañ ko yar ci loolu mmh. am na keneen koo xamante ni moom day génn xëcc suuf ñun dañu daan wax ci jamono waaye xale bu góor dafa war a takk suuf takk kii regarde cette façon de penser c'est-à-dire culturellement notre blocage il il est culturel la façon de voir de fonctionner dans notre société mooy plombé suñu lépp da ngay gis ku ñu fal ministre yaayam lay xalaat sama yaay liggéey na. Mm-hmm. alors que sas mooy que yow sa àdduna tey lay tàmbalee metti mm-hmm. parce que am nga opportunité wu bàkkaar abadan mm-hmm. ilaa mais ñun notre philosophie mooy sama yaay liggéey na on se retrouve suñu géwal ñëw na juddu euh, et après c'est quoi tout est fêtard et festif. Ouais. mais nag jigéen moom jigéen ñi ñoo bëgg ñoo sénégalais moo baaxoo ni que jigéen mooy set góor mooy tilim man par exemple macha allah j'ai vécu avec mes onze sœurs elle elle tout le temps boo ñëwee ñoom boo toogee def lii ñu ne la non non góor du du du set de trop da ngay xaw am noo mel tuuti xaw a tilim fii sa néeg bu duggee gis mu am pagaay wala dara booy ranger ñu ne la non non non c'est pas comme ça. mais bi gi yow si bopp. macha allah <laughs> macha allah waay waay waay yàlla sàmm leen. amiin amiin yaa rabbi amiin alors ñu waxtaan tuuti rek ci li nga xamante ni aussi.